ministre bi day waaw te la daal di xam le nag ne maanaam toog waxtaan wi day dana am talaata fukki fan ak ñaar ci weeru juin tribune yéene kaay ne dëgg la ma ne la président Macky Sall day waaw daal di rekoor nag lu jëm kon ci wàllum waxtaan wi day wàllum pétrole bi gaz ba talaata ji di ñëw na moom lu jëm croix ci laas ne ñun moom demuñu xaw ma fu muy waxtaanee waaye ñun ñii demuñu participé wuñu tribune yéene kaay ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali bu ko defee ma daal di expliqué day waa réew mi la nga xam ne nag moo nekk ca waxtaan ba juboo ci wàllum gaz ak pétrole boobu bee suñ diggante ak Mauritanie yaa dallah te jamono joo xam ne nag maanaam ña ngay waxtaanee wàllum gaz ak pétrole waaw termine yéene kaay nee na waa banlieue ba day dañoo mar mar naan ma ne la ndox doo bëggoon rëpp jaaral ma Arafat dem koon Grand Yoff ma ne la demal ba cité suprême gaye ba ca unité 10 ba 12 ca Parcelles Assainies waaw ma ne la ndox na leen rey parce que askan wa ca boppam day génn nañu ca mbedd ma daal di wane kon seenu naqar mar bi nga xam ni kon mar nañ ko daanaka fi mu nekk nii juróom benn weeru yàlla ngi ni ne doxum ndox amu fa six mois laa la wax ay dëllaa maa la ko wax ma ne ci yéen ni quartier yoo xam ne sax ndox maa ngi fay dox doxee waaw dañoo songu kër yooyee laa la wax nii mbooloo ma lam fa mujj jur day mooy xeexu robinet mbedd rek ak bu xënte bu mitee miti sax termine yéene kay ne te temps yii gis ngeen ni réew mi méttee eh. xaalis amul waxantuma laa jënd ndox interdit fa douze waaw baare kon circulation baax ay dala ma ne la ñoom kay ña ngay ritu sax nag lañ doon dëkkee Ndakaaru Njaay jël jox xanaa kaw ga sax boo fa dëkkee am na ay teen nee nañu weeru koor wu mitee nii ma ne la mën ko dund laa wax mukk ci këru àdduna mukk ci weeru koor wu miti ne ren ndox amul te baraama te ñu nee na bu amulee far farloo amul sàcc day waaw ma ne la appel d'offre bi nga xam ne lancé nañu ko ngir wàllum séddale ndox mi day ci dund kaa xii mag yi waaw waaye see day ñooy gagné kon marché boobu eh, te kaw siège ak Veolia tey yorin gi yorin ko kay eh, libération yéene kaay nee na projet day ah lu toll la juróomi milliards la jébal Green 2000 la bar wàllum njaaj ak sàcc goo xam ne day moo tax ba ñooñee daal di kon am xaalis enrichissement frauduleux la waaw entreprise israélienne ñoom la ñu dénkoon nag ngir ñu tabax ay domaine agricole communautaire waaw waaye kay ba nga xam ne kon la ñu bind ngir liggéey ba door tey dañu ko antidaté loo xam ne suba la war a tàmbali ñu bindal ko barki démb eh way samba ma ne la juróomi weer la ñu ko arrière laa la wax laataa signature baa dal ngir société israélienne bi green 2000 waaw te la daal di encaissé lu lu tollu juróomi milliards la daal eh. mi amul soo ko sion eh waay Samba ah! maa la ko wax bu ñu sukkandikoo ci inspection générale des finances bi ah. nga xam ne day daal dinañu tuumaal ne a yii ne walaay liggéeyu ngir seen réew intérêt réew mi taxul leen na jóg mukk waaye réew mi ay waaw daa yore bor ba ca ndott la mobile enquête yéene kaay nañu lu tolle fukki milliards ak juróom la ñu yoreel école yii yu bi maa ko wax quinze milliards lu jegee ñaar fukki milliards la gi yoreel Ecobank allahu waaw ma ne la nguur gi yoral na leen lu ëpp juróom ñaar fukk ak juróom ci ay milliards la ilaha soixante quinze milliards laa la wax yéen kaa gi ne waaye lii kay moom moo tax ba sànce yi daanaka lépp a taxaw bu taxawul tamit ay doxu kakatar lay dox doxu kakatar bu ñu xëyee di jéeri suuf si rek sànce yi demul dikul bu suñ faas dooluñ fayuñ xeexuñ atawuñ xeex ba su li ne dëgg la nguur gi kay waaw ma ne loo ëpp juróom ñaar fukk ak juróom di soixante quinze milliards la ñu yoreel na kon waa bâtiment loolu tax nag ba syndicat gi njaboot te ñuy yëngu ci wàllum bâtiment tey waaw ma ne la weer la ñu jox nag Macky Sall gouvernement ngam bi ngir ñu fay fay leen seen xaalis nag ndaxte ate bor ka fay la waaw waaw waa ana plan Sénégal émergent alaaji Malick wax ci suñ ko tijjee ne plan Sénégal émergent googu moo rey Sénégal laa la wax moo suuxal réew mi ardigali Malick wax ne waaw parce que plan Sénégal émergent day mujj nañoo wane ñettuñu dara c'est du dara rey nañu ko ko bëgg réew mi le plan Sénégal émergent bi tax na ba xale yi amuñu liggéey chômage plan Sénégal émergent kii waay moo tax léegi nit ñi di gobar jaas yi togg añ bi ca reer plan Sénégal émergent Macky Sall bi daal boo bëggee dégg Alaaji Malick Gakou day waaw nee na bis bu yàlla dogalee ma gagné présidentielle yi 2019 waaw ma ne la plan Sénégal émergent bi lay jël ko fële daal di indi base Eh, way samba paas programme alternative soxali Sénégal <laughs> Malika ku ne waaw boo ne bu du juddu boo ne liir ku juddu am nga juróomi junni eh, way samba mbete France dooleel couverture maladie universelle de zéro à douze ans la Macky zéro cinq ga ku ne zéro douze ans neex na alaaji Malika ku ne jeune diggante fukki at ak juróom ñetti wutali fanweeri at waaw am nga ñaar fukki junni ak ñeent laa la wax cent vingt mille ngir France de jeune eh, way samba Macky Sall dem deuxième touram sax nag daa wóorul yàlla xam na li Macky Sall ci boppam sax moo wóorul ba xam moom dina dem deuxième tour tey élection yi yee réew mi quotidien nee ngir Karim Wade dellu si ci biir réew mi day bàyyam di Abdoulaye Wade waaw lu ne lu ne def di manœuvre Karim Wade moo mee eh, vox populi nee na procureur spécial créé yi boobu day eh, nga xam ne moo ko yóbbu ndugul seen waaw procureur wax na de ma ne la procureur Aline Ndaw ah nee dara waaye naa ko dama fa liggéey la ma fa liggéey teg ko ma ne la procureur Aliou Ndao la quotidien yéene kaay waaw nee na dossier Khalifa Sall bi ah wala de nelaw leen ay xel mu waaw da ngay gré de la fin mar d' Italie waaw dem naa ca football ba abi bee ci vox populi nee na su ma nekkoon entraîneur bi dinaa wax ak Sadio Mané parce que man ni ma gisee ak ni nit ñi gisee ci Sadio Mané bokkul dëgg la il est le maire mais buñ ne moo nekkoon le maire mais yenuñ ko ko ko de déedéet dañoo yoroon i ndaanaan lu mel ni Fadiga Fernand Coly Salif Diaw Aliou Cissé ak ñeneen ak ñeneen bal bi ci tànku Fadiga la doon jaar muy séddale ñu bàyyi El Hadj Diouf wane maninam loolu la ñu war a def Sadio Mané waaye yéen ko ko mu ko alaaji <laughs> Habib Bey football lay wax de alors ñu laaj président Lamine Gueye wala Soxna Fall buñ paree ma ne la alaaji tëjal